bi solution info mbégte la ñuy am saay su nekkee comme niñ ko baaxoo di defee altine bu jot ñuy jéggalu nag bu baax a baax ñëpp xam nañ ne altine bi ñu weesu ci la ñu doon julli tabaski di baalu ak ñëpp te leen di baal di ñaan yàlla suñ borom ñu fekkee ko at yu bare bëree bëri naaw loolu nag damay daal di nuyu waa Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ñanal leen jàmm ñaanal ko suñu sëriñ bi sëriñ si mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñ mboom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xaalis ci biir réew mi yëpp suñu mbokk internet yi nag duñ leen fàtte benn yoon rawatina nag waa diaspora bi nga xam ne say su nekk daf ñuy bàyyi xel ñuy leen jaar leen wax leen ne nag l'émission des émissions Dooratina Assane le perturbateur moo ngi nii taxaw di ñu perturber mais bon euh, ñu ngi koy nuyu moom ji Alaaji Sadio Meng mu nuyoog internet yu suivre solution ci l'émission des émissions.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 di baal ñëpp ak di leen ñaanal ñu teewee ko ay déwéni déwéni déwéni déwéni eh, kenn bañ a manqué borom mën na ko yàlla na ko def di mbokk yi nekk ca bitim réew mm-hmm. waaye di nuyu aussi tamit mbokk yi nekk ci biir réew mi incha allah nga xamante ni bi fu ñu toll rek eh, ñi ngi ñuy wan cofeel goo xamante ni kenn mënu laa wax fu mu yem mm-hmm. waaw doo xam fa mu tàmbalee ak fu mu yem loolu nag nekk loo xamante ni loo am solo la mbir la moo xamante ni bi yëg nañ ko waaw di rafetlu bu baax a baax seen ab taxawaay di nuy ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla nangu ñaani day jaajëfal ñëpp rek comme nuñ koy defee altine bu jot Moodu tey nag fas na nañu ànd ak yéen ci l' émission des émissions ak kii di Kader bu Sen TV ci émission boobu di Grande Gueule moom nag daa daal di félicité ki nga xamante ne ni moo di le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci euh, daanaka dem ba mu demoon fële ci France. Euh, ngir rek ca forum boobu noppi ca nag daal di euh, jàkkaarloo ak président de la république bu France muy Emmanuel Macron nee na nag fi mu toll nii wax ji ci jëmmi boppam mën na ñàkk nañu xool ak euh, bàyyi leen ñu dem ak seen xel tey daal version boobu la indi mu ba mu jaaxal nag ñu bëree bëri ci kanam tuuti daañ ci ñëw wax leen li tax ñu ca noppee ànd ak gajaga fële ca TFM moom itam ñëw na ba tey daal di indi ay explication ci demuk France kii di président de la République du Sénégal muy Bassirou Diomaye Diakhar fay wax euh, ci diggante Sénégal ak France na mu doxee ba indiwaat ay kàddu yoo xam ne ne kii di Ousmane Sonko yëkkati woon na na ko fi jëmale ko ci français yi ba wax ne kudd bi nga xamante ne nii maanaam seen conc bi ñu jël teg ko ci Sénégal nañ ko teggi wax itam euh, balaa laale armée française bi basé wu fii ci biir Ndakaaru fële ca daa daañu ci ñëw léegi léegi incha allah ñu fa yéene ko jeexale ak aadama Fall mi nekk euh, APR moom itam. ñëwaat na encore euh, sulli mbootu li nga xamante ni nii nee na nag après ay sourcam mm, kii di Bassirou yi fay buggul woon euh, Sonko comme PM nee na nag kii di Mimi moom la choisiroon waaye nag euh, coow daal di jub ba nee na Ousmane Sonko daal daal di lank carré mbir mi ni mel. mu mel ni daal suñu déggee Adama Fall euh, Ousmane daal mooy buum di bummi ci boobu boobule euh, gouvernement léegi léegi la ñu daal di koy yaatal dañ koy daal di dooree Modou ak ki nga xamante ne ni moom moo di Kader nekk fële ca Sen TV kaddu yi mu yëkkati jëmale ko ci visite boobu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye defoon fële ca France ñu déglu ko te dellusi d' abord saluer bu baax a baax li nga xam ne moom moo di première sortie président de la république monsieur ay Faye donc euh, parce que liñ ci doon xaar yëpp mate na ko sincèrement euh, vu dem bi mu fa dem ak ni mu fa demee aussi ak ñi nga xam ni li leen njëkkoon inquiété mooy pourquoi il n'a pas été reçu à l' aéroport par les honneurs raison bu visite bi parce que tey jii bu fekkoon si ne nii Euh, euh, visite la boo xam ne si ne nii visite d'affaires la wala visite boo xam ne si c'est sur invitation du visite d'état là mën nañ comprendre honneur nga xam defaloon nañ ko Wade defal ko Macky defal ko ku fi ñëw defal nañ la ko dinañ comprendre depuis l'aéroport ba li nga xam ne si moo di Élysée mais cette fois-ci sotti yi benn il faut que ñu comprendre loolu que nii la mën a demee balaa ñu fi nekk di minimiser naan il n'a pas été reçu à l'aéroport ni euh, non vraiment faut pas quand même ñuy ñuy tuutal Sénégal Sénégal am na foo xam bi fa tolloo waruñu xool ay détails pour des raisons politiques li ñuy xool mooy c'était le président de la République moo génnoon et il a bien représenté le Sénégal il l'a représenté ci invitation bi il l'a représenté aussi devant le président Emmanuel Macron euh, euh, euh, Macron donc lan lañ ci war a mën a tiitati léegi nag concernant nos relations liñ ci jot a génn liñ ci jot a wax nii rek la mën a demee il faut que ñu dem ci nii ba ci kanam ñi nga xam ne si nag nag suñu relation ak la France daf leen déranger il faut que ñu muñ les engagements politiques ak les responsabilités d'un homme d'État duñu benn aujourd'hui Diomaye bi fi nekk ce n'est plus un Diomaye de Pastef ou de parti politique mm -hmm. il le président de la République mm -hmm. il défend d'abord les intérêts de li nga xam ni moom moo di le Sénégal les intérêts de l'UEMOA les intérêts de du CEDEAO mm-hmm. doog nag teg leneen ñi nga xam ni ils ne font que blâmer pour blâmer nga la waay cette fois-ci nañu muñ Diomaye a bien représenté le Sénégal les accords ak yi nga xam ne si jot na ko waxtaanee ak euh, Macron mën nañ ci comprendre que ni incha allah euh, euh, le Sénégal dina ci génn gagnant et que dinañ ci am. voilà mi ngi noonu jërëjëf Modou Alaaji dégg nga Kader kàddu yi mu yëkkati tey nag ñu gis ni Kader bu changé discours la parce que bien avant ñuy amal élection présidentielle yi ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko gagné moom nag taxawoon na yëkkati ay kàddu wax ne euh, doon na am kersa lool gis Jomaay mu jàkkaarloo ko Emmanuel Macron wala Donald Trump wala yeneen président yi tey jii nag nee na Jomaay def na li ko waa représenté na Sénégal ci anam yu gën a rafetee euh, par rapport ak si discours bi mu def ci forum bi ak jàkkaarloo bi mu jàkkaarloo ak euh, président bu français yi ban jàngat nga am tey ci discours kii di Kader. waaw d'abord jàngat bi ma ci am mooy. tànk moom day tàlli rek wala mu banku waaye boo seetee hmm. kadeer li mu wax hmm. euh, maanaam dafa mel ni ku tuub te tuubut ah. man loolu laa gis ci ni mu waxee gisuma ci ne nit ku tuub la dëggal ak tuubam hmm. euh, boo seetee daf ne d'abord moom reconnaître na ni visite yi amut visite yi yamut hmm. visite yi nga xam ni moom la président Wade doon dem di seeti ji Macron doon seeti ji président France hmm. wala kii doon dem di seeti ji président France président Macky Sall hmm. nga xam ne bii dafa demoon pour kii kii dafa demoon ci beneen fu ci benn forum la demoon après loolu am donc gis nga ko mais loolu yëpp xam na ko mais boo seetee mi ngi démarré ne bon Euh, dalal ko ci avion bi nit ñaa ngi wax loolu moom mooy wax kenn waxut loolu yëpp parce que nit ñi xam nañ nit ñi du nit ñi moom la maanaam moom mooy wax waaw <laughs> non boo dégloo wax ci da ngay da ngay comprendre non do da ngay comprendre li muy wax maanaam même bu fekkee ne mu ngi bëgg a wax lu baax maanaam li mu nekk nii nag euh, manque de liberté la hmm. maanaam li mu mujjee wax ci ni euh, Diomaye président Diomaye euh, représenté na Sénégal comme ni mu ko war a représenté représenté na kii taxaw na taxawaay boo xamante bi taxawaay bu am solo la loolu mooy ngëm-ngëmam mais il faut mu leel ki mu nekkal euh, maanaam euh, njiitam njiitu fi mu ne Bougane waaw moo tax ñu am problème pour wax dëgg-dëgg li nekk seeni xalaat boo ko seet mais ñoom nee kenn tënku leen. ñoom non non non boo ko seetaanee xam ni ku ñu tënk la. maanaam tey jii euh, Kader mi bu nekkoon ci beneen télé. Hmm. dina gën a nekk à l'aise ci buy jàngat mbir mi. Hmm. xam nga lan lay wax. waaw ni mu waxee nii man de juumoon naa. parce que dama doon wax ne. Hmm. président Diomaye mais bi mu jàkkaarloog Emmanuel Macron wan na ko ne ko. gisoo fa lenn loo xamante ni bii lu jëm ci wàllu complexe la. comprendre nga. waaw façon boobu mooy kon bi muy waxee mais boo seetee li mu naan nit ñi ne nii nit ñi ne nii nañ bàyyi lii nañ bàyyi lii loolu euh, bëgg na gars yi accepter ko quoi maanaam kii bi mais tellement day con day calculer euh, kii bi moo tax muy rappeler mbir yi xam nga tey bu fekkante ni bi tey président Diomaye la ko yëkkati woon du visite officielle boo xamante ni bi daf ko am ak ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron. Mm. dafa demoon ci forom boobu ñu wax ci lu jëm ci wàllu vaccin affaire yooyu après ñu jógee fa ñu ne Emmanuel Macron moom moo sàkku gis ko sàkku ngir dalal ko comprendre ko mm. bañ demee it gis nga na nga xam noonu la yëf yi demee après gis nga tubaab yeeg yëpp li ñu ci wax loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg ñoom nag dafa am loo xamante ni bi moom mi waxoon na ko te loolu daf ko waroon a indiwaat parce looloo tax booy vaar ko mm. muy que ni moom moo doon wax naan imaginer ngeen jamaay jàkkaarlook Macron xam nga ba bi mu waxee loolu sax. ne ci am kersa nga gis Moustapha Sare waxoon na ko ne ko yow waroo sax nekk chroniqueur bu mu amoon télé boo xam ne man yow chroniqueur doo ko fa doon. comprendre ko. Mhm. nga gis façon bi mu la waxee loolu dafa waroon a tax mu jégglu ko mu ne juum naa parce que nangu say njuumte. lenn la ci ak yëkkatiku nit ñi bu boobaa même sax bu ëllëgee booy wax dara dinañ xam ni kii kat bu juumee dina nangu ni juum mais est que nekkul tànk yi. non waaw mais c'est que nekkee tànk yi na koy def ni nga xam ni noonu la waree. parce que dafa am loo xam ne dafa tuuse woon moo tax bi mu ko defee booy dañ ko indiwaatal li waxoon. pour wan ko ne ko yaa waxoon lii donc bu mu fàtte ay waxam da wax ah man de juum naa parce que wax dëgg fa yàlla. bi ma xoolee woon Jomaay ci opposition ak bi ma xoolee mu nekk président wax dëgg fa yàlla wuute na. Mhm. waaw donc nag man defoon naa erreur te ñi nga xam ne bii man ak ñoom bokkoon nañu gis-gis war nañoo génn def lii ma def. mais est que du ñàkk liberté bi ngay wax tout à l'heure. moom laa la wax ne la bon loolu ñemewu ko maanaam bëgg na ko nag mais ñemewu ko c'est parce que amul liberté wu euh, carrément dëgg-dëgg. wax ay xalaatam comme ni mu ko war a waxee quoi maanaam waxuma ni nag dañ ko ko xañ mais parfois nit yaay xañ dara sa bopp te fekk rek kenn waxu la dara maanaam yaay jéem a xool sa njiit comporté woo nga ne da ngay jéem a connecté woo ak moom te demaloo say xalaatu bopp te fekk na yow kooku waxu la sax ne la yamal fii waxuma ni dañ ko yemale mais moom ci boppam moom moo yemale boppam parce que nag peut-être mën naa am ay doxalin yoo xamante ne bi mooy tax nga jéema a sa bopp ci yenn yi mais en tout cas daal xam naa ni. Mm. Euh, waaye nag euh, lu mu ci mën a doon rek. Mm. Euh, di gis dëgg di ko wax c'est très important. nit ki moom lu mën a am ci àddina boo gisee dëgg rek waxal ni lii moom dëgg la. waxal na nga xam ni noonu la demee. Mm. parce que am na ñoo xam ni mën nañ ko gis ba noppi te du ñu am lii mu am nii sax kës néew ba nga xam ni yow satisfaire na la nga wane ci mbégte. am na ñoo xamante ni bii tey buñ ko gisoon it duñ ko def kon donc lii tamit lenn la ci ak ki euh, courage la tamit mais des na tey dama koy gën a puus ngir mu gën koo am quoi comprendre <laughs> ma jigéen kenn yorul kenn ci àddina dama bëgg bëgg ñoom ñu xam ni wallaahi gis nga àddina bi kenn yoru fi kenn kenn yoru fi kenn mm-hmm. yaa ngi dégg dafa am mm-hmm. benn waay joo xamante bi dafa nekkoon ku surgaam mujj gi mu jekki-jekki naan ko bu ma la kii ak man lii ak lii bi ne ko boo ma boo deewoon tey sax la sama dund di gën a neex parce que tey boo deewoon rek xarmee dañ koy defar añ bi day gën a neex pour te diir que ni. Mm-hmm. kenn yorul kenn. yàlla waaw mm. sunu borom nag bu jaaralee dara. Mm. ci say loxo ngir nga di ko jox nit ngay bëgg a jékki ne da nga ko koy xañ. sunu borom ubbil ko. lu raw lim la ubbil boo defu ndànk sax mu wëlbati ko di la jox. Mm-hmm. donc il faut que nit ñi xam loolu. te xam ni tamit nit danga war a am liberté ci say xalaat ak say gis-gis quoi mm-hmm, mm-hmm. comprendre di wax li nga xam ni moom nga xalaat mu bañ a nekk nag loo xamante ni bi ay euh, tappalee laak yenn quoi maanaam li nga xalaat nga wax ko que ni nit ki bu fekkente ni bi ànd bokku leen gis-gis tam bokku leen gis-gis mais say xalaat la quoi loolu nga bu yow ci sa bopp loolu c'est très important. c'est important dëgg la kay jërëjëf Mbengue moom Kader daal loolu la wax mais bon yàlla baax na ay ayca Gajaga nag moom moo dëgg yàlla moom it ñëw na ci ba tey ci boobu boobule. président bi defoon wax euh, diggante Sénégal ak France euh, ni France euh, laxasee jaan ci Sénégal wax ne itam Bassirou Diomaye daal ak Sonko dafa mel ni bokkuñu ay gis-gis ndaxte Sonko moom moo fi toogoon wax ne français yi daal nañ ñu bàyyi tey visite bi mu def indi na ci xalaatam moom itam ñu dem déglu ko ànd ak Modou Diouf te dellu si bi ma njëkkee xool li ma gis bi visite bi amee ba pare dama gis bi ñu gisee président Macron ak président Diomaye fay ñu def communiqué conjoint nit ñu defandoo communiqué conjoint réeroo bariwu fa ci biir communiqué bi ma gis partenariat équilibré bu may xoolaat communiqué yi Macky Sall mi ñu doon jiiñ préfet wu France 12 juin 2017 yaakaar naa day mel ne les même communiqué laa lii day mel ne ñaari communiqué yi presque dafa mel ne benn communiqué la léegi bu may xool France Sénégal des fois damay ree quoi dama naan mais la moo tax ñun par exemple bu nekkee dans l'opposition lu nu neex rek wax suñu faloo rek xoolaat suñuy moo maanaam le projet nous est expliqué par Ousmane Sonko du Diomaye moo ñu ko expliqué le projet Ousmane Sonko moo ñu ko doon expliqué Ousmane Sonko dañu il faut que la France nous foute la paix ni il faut que la France enlève son genou sur notre cou muy wax bu rëy mais man communiqué bi ma liir dañ ni relation d'amitié lien humain laa gis maanaam démocratie partagée yooyu laa liir man je me foofu li ñu ñu woon mais maanaam que les bases militaires françaises dafay dafa war a dem franc CFA bi dañ ko war a xoolaat mais boo faloo rek sàqi boo ko tiimee rek xoolaat sa position ci kanam parce que je sens que gars yi bu ñu faloo les mots sont mesurés bokkul ak man le projet bi ñu Ousmane doon wax ni entre la les relations ñun ak France que France daa jël jeune wam bi teg ko suñu loos bi li ma gis ci communiqué bi c'est une continuité diplomatique par rapport ak relations yi amoon ah, en tout cas ba fi ñu tollagum nii tey léegi nag nuyoo Diomaye fay ak Abdou Diouf mais Sénégalais yëpp ko magnifie boo ko xoolee daf lay woon taaru Sénégal ak suñu démocratie hmm. ak ni mu rafete mais da ngay sant yàlla parce que da nga naan heureusement qu'on n'a pas fusillé nos anciens présidents si les gens avaient suivi Ousmane sur hmm. fusiller nos anciens présidents mais kon tey cette cette belle cette belle image là du am parce que cette image là <laughs> dafa rafet image yu buy nuyu Diomaye fay mais mu neex booy monté ko naan ko di ko wan nit yënga ni wàññi naa mburu bi ñuy tooñante entre séeréer mais da nga naan heureusement qu'on n'a ancien président parce que ah benn fan de l'élection présidentielle Diomaye Faye a été reçu par le président Abdoulaye Wade qui soutenu tey mi ngi dem France premier déplacement mu seeti Abdou Diouf kon si on avait fusillé nos anciens présidents comme Ousmane le disait heureusement qu'on l'a pas suivi mais voilà mi ngi noonu Alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne ni euh, dara Gadiaga yëkkati na ko jëmale ko ci euh, visite bi euh, wax na ci nag wax yu bari wax ci mbirum diggante Sénégal ak France ni ci Sonko waxee woon taxawaay bi mu ci amoon euh, gisante Abdou juuf ak président bi wax li ci Sonko waxoon kàddu yooyu Badara yëkkati est-ce que jàpp nga ni waxoon na tey ñuy soulever waat wax yoo xam ne waxi démb la woon. waaw waxi démb de parfois di ko di ko wax sax dafa baax parce que c'est très important ñuy fàttali. Hmm. Euh, waxi démb. loolu dafay am solo. Hmm. ñu wax ni ñu ngi fàttali waxi démb euh, mais léeg-léeg nit wax démb nga yaakaar di dégg nga ko te fekk ne déggoo ko hmm. wa ak li xew nga méngale ko nga foogoon ne yow comprendre nga te fekk ne comprendre li gën a doy nag ci jamono ji hmm. mooy ñi xamul ñoom ñoo bëgg xamal ñi xam maanaam ñoom ñii dañoo xamul askan wi ñoom dañoo xam léegi ñoom ñu ne dañuy xamal askan wi xam nga askan wi xam moo tax mu topp Ousmane Sonko ba askan wi dem ba yëg ci Ousmane Sonko ne kii kat ku mu mën a ma joxoñ sax ma xam ne kooku ku baax la mm-hmm. ne ko yow laa tànn waaye boo ma tànnalee ma tànn ki ma tànnal kon askan woowu mm-hmm. dañoo dégg lu Ousmane Sonko de dañ koo dégg li Ousmane Sonko waxoon ci France France da koo jëfee defe naa ni boo xoolee ndaje le président Macron ak président Bassirou Diomaye Faye di nga xam ne ay nawle yu toog lañ waaye doonatut ni employé ak patron ñoo toog nawloo na ko te doon nañ gis ni sunu président yi daan dem daanaka dañ doon dem seeti seen njaatige waaye bi la yoon sénégalais yëpp yëg nañ ni ki demoon nawleem la seeti mhm. te français yi ñoom ci seen jëmmi bopp boo dégloo seeni débat dangay yëg ni ñoom yëg nañ ni ki ñu doogaloon mm. nekkuñu koo xamante ni kii ñoom ñooy njaati njaatigeem waaye seen nawle la Emmanuel Macron toogaloon nawleem la toogaloon mhm. loolu nag mooy la Ousmane Sonko ko waxoon te France doon def le tout pour fexe ba Ousmane Sonko du yegg si ci nguur gi mhm. même France moom doon fexe ba ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko joxoñ di fexe pour du yegg si ci nguur gi waaye gis nga tubaab yi ñoom bu ñu perdre dañuy nangu ni perdre nañ maanaam gañe nañ leen askanu Sénégal gañe nañ li ñu amoon ñoom bëgg ko moom la am français yi ngir bañ a ñàkk li ñu am ñu nangu ay xalaatu ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko moo tax le président Diomaye bi mu demee dafa dem rek yëf yi nekk comme lettre booy def ci post bi maanaam boo seetee mbirum armee française bi muy wax. waaw moom bu doon suivre na xam na yëf effectif bi dina xam ni. Mm. loolu nga xamante ni bii non moom bu doon xam na sax dina xam ni. Mm. dogal bi nga xam ne moom la réewum France jël plus de trois cent soldats yu fi nekkoon mu ne dina dindi. deux cent yi deux cent yi. mu des loolu mooy dimbali ma rek ci sutura. parce que lu ko mooy rek dañ naan dañ maa dàq. comprendre nga. Mhm. waaye loolu génn gi la mais loolu Badara Gajaga mënu ko gis parce que xelam day fattu pareen saay ci nga bañ dara <laughs> loolu ne maanaam doo gis yenn yi mhm. loolu mooy li nga xamante ni bi moom moo ko dal mhm. ba tax mënut ta gis li nga xamante ni bi tey ñi ngi koy waxtaane leneen li muy euh, président ancien président waaw muy président Diomaye dem gis ki nga xam ne mooy président Abdou Diouf Eh, dem gis ko eh, mu nekk loo xamante ni bi lu rafet la waaw mu daal wax ni xam nga ñoom pareensaay dafa am loo xam ne dañ koy bañ ñoom dañuy wax ne Sonko mooy diriger jomaay du dara dafa mel ni kii ak loolu rek tey ñu ñëw wax ne jomaay li muy def nii boo ko xoolee kon day mel ni kon lii Sonko digalu ko. Ah, waaw contraire waaw kon dangay gis ni day delluwaat ci li Ousmane Sonko ak Jomaay waxoon ci njëlbeen nga boo seetee bu boo fàttali ko ne président Jomaay nee na moom ak Ousmane Sonko lu bari duñ ci bokk gis-gis. Mm-hmm. waaye te terewut ñi ngi ne. Mm-hmm. léeg-léeg day gisee nii mu gisee na loolu mënuñu am na yu bari yoo xamante ni bii dañ ciy xëccoo. te boobu ci jamonoy ñoom ñu nekk ci opposition bi la mm. comprendre nga. loolu moo lay wan rek ne la loolu mooy feeñ feeññi mais nag ñoom parensaay dañuy nangu ni jomaayee doxal mais parensaay bu leen loolu arrangé wul ñu ne ñu bëgg a jaxase ñu ne Ousmane ay doxal. ñoom ci contexte yi rek. la ñuy ça dépend bi ci la ñuy hmm. euh, bëgg sukkandiku ngir jéem a parensaay dañuy ñëw ngir ruube ngir jéem a jaxase ñaar yi muy jaxase boo xamante bi du fi jaxasoo insha allah rabbi parce que sunu borom li muy def def na ko bu yeboo ñu xam ni bu ñu nangu tuub dellusi ci mbir mi. Mm-hmm. bu yeboo ñu xam ne dinañ toog juróom fukki at yoo xam ne dinañ nekk ci opposition bi yàlla na leen yàlla may ñu fekkee lépp amiin amiin amiin alaaj li ci gën a garaaw nag mooy tey jii nii su demul woon gisanteeg Abdou Diouf sax ñibbisi nga gis ñu ne lu tax def ko ah, ah, Sénégal ci boppam ah, moo ndax xam nga yooyu yëpp tey nga mm-hmm. xamante ne bi ñu ngi koy ñu ngi koy def mm-hmm. eh, bu yeboo ñu xam ni eh, mënuñu réussir yooyu Mm. lii ñu bëgg a réussir yëpp mënuñu ko réussir. waaw parce que yëf yi moom eh, incha allah <laughs> dana dana neex ci kàttanu borom. incha allah bu soobee sunu borom. parce nañ xam ni ñoom lañ xamoon. Mm. loolu moom daf fiy jóg. Mm-hmm. waaw leneen ay am te incha allah rabbi dana. dina dina soppeeku. Mm. waaw ñoom de bëgguñu mu réussir waaye du jóg ci di jéem. ci jéem googu nag moo waral tax kii di Adama Fall. def ay révélation jëm ci euh, ba ñuy tànn euh, jëwriñ ci njëkk ci gouvernement bu yees bi am na nag euh, ay wax yum ci wax nee na daal am na ay source yu sûres yu koy wan ne Mimi Touré le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëggoon comme premier ministre waaye nag Ousmane Sonko def ci lànk carré ñu dem déglu ko moom Adama Faye maintenant beneen information maa leen koy jaay yéen source mm-hmm. c'est pas lui qui devait être le PM mm-hmm. c'était Aminata Touré maa ngi la koy joxaat damay def digression damay def digression c'est elle c'est Aminata qui devait être le premier ministre mm-hmm. c'est Aminata que Bassirou Diomaye Diakhar Faye voulait comme PM ah, léegi Sonko a a refusé mais mm. man maay nekk PM on a proposé à Aminata bon d'après les sources on a proposé Aminata le ministère des affaires étrangères mm-hmm. elle a refusé mm-hmm. dem toog jàpp ñàmburam parce que pour dire la réalité c'est que Diomaye n'a jamais voulu que lay jox lay jox ay exclusivité hmm? Hmm? en réalité. Hmm. en réalité Bassirou Diomaye n'a jamais voulu que Sonko soit son premier ministre. c'est que le premier le président de la que tout le monde va tirer sur la gestion du pouvoir si on son premier ministre c'est un peu peut-être il a. alaaji sa xarit bi Adama Faye maa ngi naan Adama Fall rek man Adama Faye de nee na mm, Adama Fall nee na nee na nee na euh, Aminata Touré daal bi ñu ko proposé euh, affaire étranger non seulement dafa bañ nee na Bassirou itam buggul woon Ousmane Sonko nekk premier ministre Ousmane Sonko lànk te nee na li muy wax am na ci ay certitude am na ci ay sources Euh, moom daal kàddu yi la yëkkati daal encore soo xam naa bokk na ci ñiy jéem <laughs> pour euh, affaire yi gëllu góose <laughs> adama adama dag daaraan adama Fall waaw euh, APR la nekkoon am mhm. ah, moom ba tey fala la ne waaw dama ne fa la nekk waaw dama lay bëgg a wax rek <laughs> lépp lu APR di daan def APR sax nga xam li ñu daa def lépp comme tamit sanqal nga xam ne day nit dañ muy senn musu cee yëg dara ba mujj moom mu jóge ci ndajem góor ñi dem ci ndajem jigéen ña ba jigéen ña dàq ko mm-hmm. defe naa ni loolu yanke ba mu génn xotte ay ter mooy ba mu demee ca ndajam jigéen ña wala ko jigéen ña dàq mu naan daf leen di góoral jigéen ña ko génnal ndaje mi <laughs> ba mu génn moom aadama Fall mi taxaw wane foto boo xam ni mm. eh, da ko jëloon daal ne photo bi moom ak Macky Sall ñoo ne ko mu xotti photo ba nee na. photo ba moo ko photo ba moo ko monté wax na la ko. may ma rek photo ba moo ko monté. Hmm. moom Adama Fall. waaw Adama dafa jàpp ni nguur gu bees mën naa jéem a def ay mbir pour nekk bu jouer dans les cours des grands quoi. Euh, mais il est très petit petit d'esprit li gën a garaaw petit par kii ak yooyu amut solo mais petit d'esprit Adama Fall moom xam nga c'est bu jàppee ni li muy wax nit ñi ñi ngi koy gëm. moo lay wan ne la xel mi ñawut. de source sûre. non non amut source amut benn source Adama Fall mi kenn yëgut dara kenn du ko yëgal tous dafa yëgut lenn mais c'est que li garaaw mooy. Euh, boo yaa ngi koy kókkali mais xamul sax ni booy dañ koy kókkali. ndeysaan. c'est que vraiment man su ma nekkoon mbokkam danaa am gàcc parce que dégg nga booy naan ay kii ak booy ñoo la gën a xam ne li muy wax dara amu ci mais dañuy def li ñuy def pour neexal seen émission. bàyyi ko muy maanaam li ñu saana ko doon wax daan grand carré nangam sangam yaay jiin ma loolu la ko booy jàppee. Mm-hmm. maanaam nañ ko teg ci jotaay bi. waaw xam koñ boo dem am na grand buy neexal ataaya. waaw nga xam ne bu ñëwee caayan bi neex booy loolu lañ ko jàppee grand buy neexal caayan nga xam ne day ñëw yor kii di wax lu ko neex nag wax bu ko defee booy dañuy ree noonu daal di bàyyi mais gëmuñ ci dara. loolu tam mais li ci garaaw mooy moom mu xamul ni kenn gëmu ko. mais <laughs> eh, alaaji c'est que c'est Adama man vraiment ay mbokkam lay ak jabaram yërëm naa jabaram. ku ñëw ne la am naa ay sources yu. xam nga ni Adama Fall bi mu waxee lii. ah mais moo ko wax xam nga ni mais xam nga ni dara amu ci xam nga c'est que ñëpp xam nañ ni dara amut xam nga ñëpp xam nañ ni li muy wax amut. Mm, mm. moom xam na ni ñi mu koy wax xam nañ ni amut. moom xam na ni li muy wax amut. waaye terewul mi ngi koy wax loolu nag jàngoro la feebar la aadama dañ ko war a faj. ay euh, billaay noonu wóor na yàlla wérut. ki di wax wax ju leer naa dañ ko a faj. bi c'est la lii <laughs> billaay feebar la Adama feebar maa ngi koy ñaanal ku ci mën dara. Hmm. na ko dimbali. wallaay dafa feebar bu feebarul bu feebarul dañ ko teg ci plateau nag muy joxe ay révélation. yow Sénégal fii ñi dof dong la ñuy teg ci plateau di. plateau ku la gën a 15 wax gën laa waxi dof mooy fees plateau yi xoola Sénégal rek Sénégal mooy réew moo xam ne bi ku la ëpp lu muy génn ci télé ñu kii boo seetee wér. <laughs> Eh, Adama Fall mi sa xarit la de. Euh, waaw mais léppam ñëw sa xarit yaa koy wax dëgg dañ naan la sa doomu nda sa doomu ndey moo lay wax yenn yi donc Adama Fall dafa am ay problème dafa am ay problème problème am mooy yow yaa ngi ñëw ci plateau yi booy jàppee la seen grand kii. carrément yow nga ñëw naan exclusivité Adama Fall non boo ñëwaat bu bu subaa mu waat beneen. boo xamante ni bi li muy wax moom da koy leer ne li muy wax amut. Ah, mais terewul ñi mu koy wax xam nañ ni ñii xam nañ ne li muy wax amut waaye terewul da koy wax. Ah, pourtant ñoom ñoo ko fi doon bañ. Adama Fall amul benn xibaar bu mu yëg. diffamation di wax di wax. lu kii kii Adama ko <laughs> yóbbu ci yoon ay diffamation ko yóbbu nañ ko bàyyi muy wëndeel rek parce que mooy sànq boppam c'est nañ ko seetaan rek. Hmm. vraiment booy la boo xamante ni bii man bon dama koy yërëm. sa booy la sa booy la daal sa xarit nag doo ko kii na nga koy jàppale tuuti. non non non noo koy jàppale sa xarit da koy jàppale. woo ko xam day rëcc dañ ko war a takk ci këram <laughs> yeef. Adama Fall <laughs> jërëjëf de tey bu ko déggee tey xolam du neex. Ah, nee na sama xarit bi moom xarit de. <laughs> ah daa xam luy naqari xolam naqari de. d'accord ñu jamaay la nga tàggatoo waxtu wi jeex na. waa di joxante di daje incha allah rabbi. Mm-hmm. Euh, beneen altine jàmm ci kàttanu borom yàlla incha allah yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal di jaajëfal nag képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel ci l' émission des émissions jaajëfal itam moo Modou Diouf Abdou topp ak Abdoulaye Diallo ñu doon gérer technique bi gërëm leen sant leen di leen jox di jaje beneen altine incha allahu rabbi